allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si na ngeen def. ñoo ngi fi rek. ñu ngi rafetlu seen liggéey bu baax a baax. jaaree jaajëf. Euh, vraiment di leen remercier si liggéey bu rafet bi ngeen def. jaajëf yow. di jox euh, permettre askan wi ñëpp di wax seen xalaat. dëgg la. Euh, vraiment ça c' est c' est un mm-hmm. parce que li permettre nga nit ki frustré wala mu am benn xalaat xam mu koy égo yéen ngeen ubbil ko antenne bi pour mu waxoo. Mm-hmm. xam nga ça libère quoi. dëgg la. mais li mu bëggoon indi justement ci thème bi mooy que ni mhm. malheureusement man je n'ai jamais fait la politique ou bien asafula je l'ai fait depuis deux mille mhm. en deux mille laa arrêté def def politique ba Abdou Diouf daanu mais pour te dire que je suis désolé mais suñu réew mi nu mu demee nii mhm. man gëm naa ne les nouvelles autorités là bu fekkee amuñ ma ne les nouvelles autorités là bu fekkee amuñu taxawaay bu mag comme li ñu woote ñu respecté réew mi réew mi di dem fenn ils comme les autres et ils vont parce que rupture mooy mooy nga yemale baa doole bii liggéey ak ku nekk ci nguur nga xam ne alalu askan lañ ko jox mm-hmm. ñu yem ñu yem ci yoon yem ci justice mm-hmm. parce que nit mën nañu dénk alalu lu toll ni alalu réew yow nga ne lii sama yaay moo ko liggéey samay mbokk ñoo ko liggéey bu ñu la voté budget trois milliards nga jël deux milliards of sa un milliard nga koy ngay dëbb daax mm-hmm. ça ne pas mm-hmm. et puis le cas de Samuel Sarr là mm-hmm. je suis désolé pour le dire mais l'État est en train de pêcher le plus gros poisson des du régime au Sénégal parce que moom son scandale commencé wu léegi ah c' était avec Ablaye Wade les hommes les plus riches ci gouvernement Ablaye Wade Samuel Sarr la bokk à part Karim Wade mais ba Macky Sall ñëwee jël réew mi xam ne il est piégé am na ay rapport si moom Macky Sall ñëw woo ko ñëw taf ko rapport yi ba mu gis ko mun na ko da ngay ñëw ànd ak man te avant boobu commencé woon di def comme ni gars yi def léegi di acharné wu si kawam ay dégg di ko santage ba gars yi yóbbu ko kaso. ba ñu génnee kaso ci la ko Macky Sall woo wan ko ay rapport léegi da ngay ñëw ànd ak man. d'accord foofu la Macky Sall bone parce que fekkee ne woon lu mel ne alalu réew ñu dénk lëkk kii le gardien de la constitution nga gis ne kii dafa sàcc alal au lieu nga topp ko pour mu delloo alal nga ne non boo ànd ak man ma baal ni fan la ko teg hmm. bu ñu jàppee Samuel Sarr yëngal ko gësam ko yàlla xam na ne dinañ gis lu ñu mësul gis Sénégal hmm. surtout dans le secteur de l'énergie hmm. il a tellement saboté et il a tellement volé dans le secteur de l'énergie tu ne peux même pas imaginer est-ce que xam nga ne Samuel Sarr moo fi doon jël moo fi doon jënd bateau fii boo xam ne day rax ndox ah bon mu nekk directeur général de la Sénélec coupure métier amoon Sénégal da daan commandé ay bateau plus de douze milliards mais genn wàllu bateau yëpp ndox lay nekk. Hmm. oui moo tax ma ne si on buñ ko gësamee yëngal ko yàlla xam na ne dinañ mos a gis les plus gros scandales du Sénégal mu ngi ci Samuel Sarr moo xam na ko. Hmm. il est dans le secteur de l' énergie depuis ba mu nekkee directeur général Senelec ci la amee appétit ah. après ñu hmm. nommé ko ministre de l' énergie il connaît le secteur comme son bras droit. bépp scandale bu nekk Senelec. Samuel Sarr mu ngi ci. Mhm. te et puis man man gars yi les nouveaux régimes là dama bëgg ñu am une fermeté totale. Mhm. gis nga gars yi nekk fii yëpp di def ay chantage di saaga di xuloo di xeex ñun ñëpp dañ leen war a jàpp arrêté leen. ok parce que l'anarchie c'est pas la liberté d'expression liberté d'expression c'est pas l'anarchie. Mhm. liberté d'expression c'est pas que ma toog ci télé boobu gisal ndaw si yaa ngi animé sa animé neexuma ma dugg ci télé bi di la saaga. mais quand loolu du liberté d'expression kam nguur gi bu ñu defee erreur def défaut des honnêtes citoyens comme ñun ñun ñoo jóg ñu dénoncé ko. Mhm. mais gisoo loolu de mooy gisoo loolu parce que yow tëj nañ say robinet tëj nañ say buntu alors nga bëgg a ñëw pour oh, ne damay lekk wala ma salte ci. Mhm. mais ce qui est arrivé à Moustapha Diakhaté là c' est déplorable mais Moustapha Diakhaté moo tax ñu dàq Sonko impôt domaine. Mhm. moo daan ñëw ci Marème fay Sall ak Macky Sall na ko dàqal kii ndax mu noppi bu amatul lu mu lekk dootu wax. moo ko daan wax la naan ko bu amatul mu lekk dootul wax. d'accord ah, ñu ko far yàlla gis nga jël ko def ko député jox ko salaire bu ëpp bu mu doon fayeeku gis nga doomu aadama yi yàlla bu effacé bu bënnee nga effacé mu bindaat nga effacé dalay effacé ba pare. dëgg bàyyi li ñuy def te gëm suñu réew bëgg suñu réew mi lii ñuy def yëpp amul que galgal yi ñuy galgal ay régime nouveau régime bi laa et pour histoire ñun ñooy gën a perte ñun la Sénégal. Mhm. kon donc lan moo fi jar nga dem mu ngi dem toog mais yow doo dem toog nga jàpp yàlla xaar ba cinq ans yi mat. Mm-hmm. s'il faut le résultat ñu reconduire suñu la ko baal le résultat ñu tànn nga jël keneen c'est plus facile mais nga ne allah accu affaire bi du dem parce que lan y a les comment dirais-je là les mercenaires européens là ku nekk sa ginnaaw di leen financer les sociétés civiles là ah. Mm-hmm. ak les antipatriotes là ñu leen di financer pour ñu daaneel réew mi parce que waa ji dafa ñëw xam ne la rupture totale la souveraineté Mhm. tubaab yi ne loolu ñoom duñ ko dégg ah mais y' a des Bolloré les Vincent Bolloré et tout là ñoom ñoo nekk ci ginnaaw gars yi di wax ne am na mhm. télé yoo xam ne nii ba ñuy ba ñuy ubbee Vincent Bolloré moo leen financé. kan la. TFM. Mhm. Bolloré moo ko moom. waaw barki démb Ndiaye Robert Bourgi fan la defee interview ah moom moo moom moo financé waat waa TFM bi ñuy bi ñuy kii seen télé bi loolu nga wax. Robert moo Ablaye Wade ci boppam moo ne ko télé bi étranger du ko ibbi. Hmm. pour ma ibbi la ko pour ma jox la licence bi il faut ab Sénégalais bokk ci ci la jëlee vingt six pour cent xaw ma trente pour cent jox ko Cheikh Amar. Hmm. mais kon kon ñu xam ne ñun Sénégal gi ñun moomuñu ko. Hmm. le Sénégal n'appartient pas aux Sénégalais. le Sénégal ça appartient aux Français. ñoom ñii ñëpp nekk seen ginnaaw ñoom ñoo fi nekk di wax ay ma jambal jaañ ak Cheikh Yérim Seck ak tous ces gens ay nit ñoo leen di ngemb di leen jox xaalis y compris Amadou Ba man wax naa bi ne la le plus grand homme danger plus dangereux du Sénégal c'est parce que day def loo xam ne moom du ci feeñ mun na taal dëkk te yow doo xam ne mu ngi taal dëkk d'accord nañu bàyyi suñu xel ci réew mi bëgg réew mi ñun ñëpp ñu àndoo liggéey réew mi ñaana yàlla ñuy avancé. incha allah bu avancé suñu sag la bu avancé wu suñu retraite la ñun ñëpp ñun ñooy perte. wér na voilà donc mi ngi jaru ko fi waaw. jërëjëf. waaw maa ngi lay remercier bu baax nag man monsieur Diop laa tudd maa ngi fii Dakar. d'accord monsieur Diop waaw dégg ñu ngi lay jaajëfal bu baax. allez merci beaucoup. Eh, jërëjëf. ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom monsieur Diop moom ak ñi nga xam ne ñoo fi jot a dugg woote li leen jaajëfal ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci di ñu topp boobu ba léegi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax xam naa li ñu amoon ci